naka nga dundee koor gi en tant que lutteur. waaw metti na mettiwul daal ndax di nga am temps wu di nga am temps wu récupérer waaw parce que boo xoolee koor gi demoo fenn boo ndogoo doo dem fenn da ngay toog rek waaw boo ndogoo ci ngay mën a profiter dem entraînement ba ay minuit nga replier wu ñëw sangu toog. reer tëdd reposé wu waaw te it lendemain bi tamit di nga mën a noppalu xam nga ci ci koor gi daal di nga mën a noppalu bu baax a baax di nga am temps ok macha allah tey koor gi mbër yi mu mel nañ koo ci seet si danaa la benn séance laay def wala sax am na ñoo xam ne tey ñaar la ñuy def mais tey caat Papa Kane ñaata séance lay def ci koor gi waaw koor gi au début bi euh, ñaari séance lañ doon def

waaw au début bi noonu lañ doon def mais bi ñu demee ba ci njeexantalu koor gi nii benn séance la ñuy la ñuy continuer di ko def mooy waaw dañuy dem géej physique contact. macha allah léegi am nga combat parce que caat bi ñu fi mujjee ñëw amoo woon combat toog nañ fi waxtaan lu yaatu nga wax ak gars yi dal leen finalement mesure am nga combat léegi sa diggante ak booy Faye parce que avant nga am combat tamit metti na démarche bi tey bi nga amee combat. tey ban yéeg yëg nga am bi nga amee combat war a jëm ci jour muy le 14 avril bii ban yéeg yëg nga ci am préparation. waaw loolu sant yàlla rek. sant yàlla rek tamit xam na yàlla moom lépp lu mu def xam na ko daal. waaw lépp lu mu def xam na ko. ndax préparé woon naa fi combat ba ci semaine combat bi ma def soog wax mu yegg sax suñ borom la neex waaw wax mu yegg sax suñu borom la neex combat bi daal ñu ngi koy préparé di ko waaj ak sunuy mbokk ak sunu waa koñ ñëpp ak waa géejawaay yëpp ñu ngi àndandoo di ko waaj waaw ñu ñaan yàlla rek lak fii ak balaa la 14 cat seexlu ñu ñun ñëpp ñun ñi ciy bëree ñëpp ba jour làmb ja ñu ñëw xam nga yàlla may ñu ndam ñu ñibbisi ci kàttanu yàlla. macha allah nga am adversaire adversaire bi nga am. xëy na xaw ma xam nga ko xaw ma xamoo ko mais adversaire la boo umpulee te ñu bari ñu koy xam ñu bari boo leen laajee souvent dañaan adversaire bi ndaanaan la est-ce que yaa ngi sóoraale adversaire bi. waaw adversaire bi man de xaw ma ko sax de wax dëgg yàlla. ko umpule. waaw man umpale naa ko quoi moom it umpale na ma. xamula moom it xamuma xamuma ko xamuma. waaw parce que làmb la rek làmb moo ñu boole ñun ñaar waaw ndax dañ maa wutal adversaire adversaire bu ñu indi bu ñu fotowee après bu ñu demee mbokk ay mbokkam bañ xam man nag man ma risqué rek ne naa jël parce que tamit làmb moom boo risqué wul doo daanul doo risqué wul doo ci génn daal parce que faaw nga daan daanaan mën a nekk ndaanaan waaw te dégg naa ñu ne moom ndaanaan la bërikat la waaw. mais préparer adversaire boo umpulee est-ce que yomb na. boo xamul yombul. Hmm. yombul préparer adversaire boo xam sax yombul. moo xaw a tane. waaw moo xaw a tane mais yombul sax ndax des fois nga ñëw préparer li gis lee gis leneen ci làmb waaw. mais adversaire bi ñu gis ni si liñ gis d'après image yi adversaire la bu am jëmm adversaire la bu am taay mais nag xamuñu ndax masse bi doole ji mu ngi fa mais tey caat adversaire bu mel noonu boo xoolee physiquement xool ko lan la war a préparer ci moom ak lan la war a entraîné loo xam ne jouru làmb ja dalay leer ne lii nii ci lu koy gën a may ndam ci lay bokk moo xam force lay doon moo xam doole lay doon moo xam contact la moo xam lan lay doon. waaw adversaire bi tey jii nii ñu bëri dama koo jël. wan leen photo am ak ay vidéo am ñu ne noo kii diis na. waaw mais poids lourd xam nañ ni koy préparé poids léger xam nañ ni ñu koy préparé te it kenn du dem guerre di wane say armo kenn du dem guerre di wane say arme waaw ku bëgg xam li ma préparé jour ba teel la ñëw dag sangu ba set dag ticket tok ci kaw turbine bi waaw bo ñëwé di nga xam li ciatu Papa kan indi. Mm-hmm. mais adversaire bi boko xolé li nga xam ni ki dama ko wara yobul doole ju bari wala ki dama wara contact bu os parce que bo xolé adversaire bi rek day xam ni adversaire bi lan nga wara liggéey pour bo démé ci lambu ja lu indi fekk ko fa. adversaire bi bu sah. oppone doole sax dinaa indi doole joo xamante ne nii du pour moom pour ñeneen ñuy seetaan pour ñu mën a xam man fan laa bokk ndax man dama bokk ci làmb waaw xëy na nag yéex a bëre bi la waaye man dama bokk ci làmb waaw te dama war a dama war a dégg daal yi ci kàttanu yàlla macha léegi yaa ngi jëm ci bis bi bis bi ku ne xam ne lu mu laaj première sorti caatu Papa Kane dinañ am lu ñuy xaar ci moom moo xam mobilisation la moo xam dugg si bi moo xam yu bari yoo xam ne gars yi dañ ko doon umpalee ci mbër nekk na ci caat gars yi ñu koy xaar ci moom fan la ci toll. waaw pare nañ tous les plans Alaaji Fàllu pare nañ tous les plans ci lépp loo xalaat nag ci làmb ja lépp luy neexal bis ba ak luy bégal samay supporters ci lépp pare nañ ko waaw di ci woo ñëpp nañ ñëw rek ñu mobiliser wu ñu dem ma daan waa ji jël buut gaaw ñu ñibbisi waaw pour beneen combat mën a gaaw taxaw. ñu ne Pirip adversaire boo umpalee la ñu ne Pirip nga gis ci moom xeex bu takkarnaase mu dox jëm sa kaw. loolu njarndéem la. <laughs> loolu njar la. waaw. bu doxee sama kaw. day gën a gaaw. am Diop indi Ndiaye. maa la ko wax bu doxee sama kaw day gën a gaaw. maa naa daa aay ci pied droit de. waaw no laay. déggoo li ma la wax dama ne la bu doxee sama kaw. waaw day làmb ji day gën a gaaw day neex. day gën a gaaw mais moom dégg naa kuy teg pied droit du la jaarale yoon. man kuy teg pied gauche du ma la jaarale yoon kuy teg pied droit du jaarale yoon. Hmm? man pied boo indi boo xeexee man ma duma la boo bëree ma daan la. mais làmb ji mën nañ ci xaar jaaga bu sax. man de moom laay indi moom. moom na xaar loolu moom. booy fay na xaar lool de. taxaw samp jaaga. maa la ko wax na xaar lool de bu dee kanamu français boobu lay bañ ku ko dóor. ah bu yeboo bu mu ñëw ci làmb ji. kuy mel ne mbàccum gerte. maa la ko wax wala bu arbitre soufflé rek tëddal. wala nga yëkkati sama loxo. mais bu fekkee xeex ngay bañ bëgg xeex bañ xeex. waaw. dégg naa daa mën a dóor tànk de. loolu lépp dëgg la. alaaji Fallou ah. alaaji Fallou yàlla baax na yàlla ñu ci yàlla yàlla ñu yàlla may fekk bi kenn du ko laal mais yow yow xam nga ñu ñun ah. yow fii nga nekk yow xam nga bu baax waaw na taxaw rek dëggal boppam ah. ci kattanu yàlla dinañ gis bëre bu neex waaw hmm. man li ma bëgg sax balaa balaa ñuy jàppante man ak moom ñu xeex benn cinq minutes door a bëre round bi ñu xeex xeex xeex xeex xeex door a deuxième round bi ñu door a bëre. loolu laa bëgg. waaye nga lan ne de te Eumeu moom xam ngeen ne xeex ci moom la fekk baax. bu bu bëggee. waaw bu bëree ba pare jox Eumeu Sène ñoom ñaar ñëpp ma boole leen ci benn takkusaan. mu ñëw waaw. waaw. Eh, xale yaa nga fa ah. xale yaa nga fa d'accord mais li nekk ci man laay wax rek de li nekk ci man rek laay wax waaw man damaa gëm sama bopp man gëwuma ko yàlla bind waaw man damaa gëm sama bopp sama bopp rek moom ma doy ci bëre waaw macha allah ci wàllu mobilisation fan la toll waaw ñu ngi koy pare comme ni ñu koy paree rek waaw gis nga yow kenn du la wax ah. gis nga gaa yi ni ñu koy waajee mm. dugg si nga si koñ bi mm. gis nga ñëpp nu ñu koy waajee gaa yëpp ñu ngi koy waaj autorité yi tamit xam nga mm. ñu ngi leen di gën a tàllalaat loxo di leen wax ne lu ñu mën a jàpp ci bolog yi rek ñu jàpp ci daal waaw lu ñu mën a jàpp ci bolog yi ñu jàpp ci parce que tamit xam nga amuñu lu dul ñoom ñoomit it amuñu lu dul ñun nan ci jàpp bu baax a baax a baax jëndal ñu bolog yi xam ñu mën koo may suñuy supporter ñu dem supporter ji supporter ji waaw mais mais mais caat caat ñu gis li ko topp gis nañ biñ dugg see ci koñ bi booy booy topp ko mais loolu noonu ñoom dañ la topp mbapat wala nu mu demee noonu wala bëgg-bëgg la wala yëg-yëgu Baye Fall gi ñu am ci yow la. waaw ñooñu man ak ñoom dañoo yàgg booy nekk si koñ bi fii man ak ñoom dañoo yàgg parce que man ak ñoom depuis mbapat la woon ñu may topp mbapat ba pare en même temps ma dëkk ak ñoom. tey jii nii aw ma sens interdit ci koñ bi fu ma bëgg a dugg ndogu damay dugg toog ndogu waaw. fi ñu ne nii boo ñëw euh, keneen bu jóge woon ci àll ba ñëw fii du xam ban kër laa dëkk ndax man kër yi awma ci sens interdit dama fu nekk laay dugg toog waaw loolu la rek affaire rek gox la affaire gox la waaw ñu ngi leen di woo nag ñoom ñëpp waa géejawaay yëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw assister ma ma du ma waaji daan ko incha allahu rabbi waaw. macha allah bëgg naa ci yow caatu Papa lay tàggatoo ak mbokk amee internet. waaw di leen di len sant rek te di len gërëm dal waaw te émission bi émission la bo xamanteni ni émission la bu gaay wara bayyi xel waaw ndax yow aladi fallu mën na ne yow yow yaay lamb dal waaw mën na ne yow yaay bokku nga ci ñuy doxal lamb ndax xalé nga te liggéey xal waaw di sant sama waa koñ yëpp di len waaw di sante sama staff bi ñom ñep ma ngi leen di sante di leen gërëm bu baaxa baaxa baax sonu nañ ci combat bi trop ñom Cheikh Oji Oji mo tok nyom dal waaw ñom Mama salu ñom Baba Yoro xam nga Mbay Buuj ñom ñep Papa Cuuc ñoo ñep ma ngi leen di sante di leen gërëm wa Kali bi fe ñom babakar ñom xam nga El ñom mo ngay gaay yep wa Kefa ga ku lim joom dal xam nga ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant sama yaay bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw li tax may gën a yokk di reyante sama yaay moo tax waaw ndax sama yaay dafa sonn ci ñun barki Seydina Ousmane sama yaay dafa sonn ci ñun waaw li gën a yokk tax may reyante pour wut fu ma ko dugal loolu laay loolu laa bëgg fu ma dugal sama yaay rek moo ma dugal ci làmb waaw te du ñii ñoo ma ko war a xañ déedéet su ma duggsee ci làmb ji sama bakkan laa ciy teg booy fay bu yeboo mu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw dafa am fu ma teg sama bët dafa am fu ma teg sama bët te du ñii ñoo ma ko ma koy ñoo ma koy kii macha allah mais Omar Kane rek Reug gis nañ yéen ñaar yéen a bokk mënuñu dem ba ba ñëw ba dem te waxuñu ci combat bi ndax jàpp na ci nu mu ci war a jàppee. Omar Kane ñu ngi koy nuyu au passage parce que moom jàmbaar la góor yàlla la waaw jàpp na ci combat bi bu baax a baax a baax a baax jëndal na ma trois blocs. macha allah jox ma cinq cent mille. macha allah. waaw jëndal na ma trois blocs jox ma cinq cent mille. macha allah waaw Omar Kane Reug waaw ñu ngi koy sant nag di ko gërëm bu baax a baax. lu lu ko war rek la def. parce que moom nekkul leneen ak leneen moo ñu boole deret la. Mm. waaw deret la sama mag la. Mm. kooku waruma woon sax toog nii di ko xam sax wax nii. waaw mais nit bu la defalee lu baax danga koy wax. waaw ah, nit bu la defal lu baax da nga koy wax di wo di wo wa geedji sama ñom papa ñom aladi kan ñom xama di wo sama papa yu fofu nonu yep yëpp geedji géej waaw di wo wa pikin hmm. boy fay pikin bi mu dekk sax ma nga fa ëpp ay supporter waaw di wo mafia bi fofu ñom momo waaw mafia talibu bu bi ma ngi leen di woo ñoom ñëpp di wo ñom xamdaat wa khurunar wa angar wa Ridis ñep ma ngi len di wo di wo wa yof Ngaparu tongor ñep wa Layen ñep ma ngi len di wo di wo ñep waaw ñu nan ñew nan ñew teel a jege si ñu fessal estade bi mais bala muy bayyi ki fi togal président fans club bi mu ngi ni muy Cheikh Odji Cheikh wad sëtu mbay wad bi bëgg naa la waaw ah, delloo siyaar Fallou Baye waccay bi fu ngeen tollu la ñong ci si kawam euh, suba ngoon xam nga di ci dang-dangi lepp dal ngir ciatu Papa kan rek parce que jar ko quoi champion la comme lu wax sank rek ñun ak mom du léegi depuis temps la la ñuy ak mom di supporter fu nek di dem ba tay nak yalla moy ko combat aran te lu mu wax ni boy fay am nga problème ah. bu la tàncee duñ la la yon day daw rek amul arrêt kan mum mum da dawul sax bayam am arrêt ah. waaw mom day daw rek comme berté bi dawagul waaw gis nga berte bi dawagul arem taawun lay am te kii nag moom arem xoolal amul are ah. fu ne lay daw. ñun pare nañ fépp déggoolum la wax. Ah. bolok dèjà dee na. Hmm. billaay. macha allah kon donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi woowaat ñëpp. bàyyiwuñu kenn. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Hmm. di ko ñaaxaat nag quoi. di ko war ko wax ne maanaam lamb mu ngi sa kanam quoi. Hmm. te di nga dem ba dégg daal incha allahu rabi. si maanaam nga gëm ko. ànd ak fierté ak force ak ak ak maanaam gëm-gëm moom moo lay tax a yegg fu nga bëgg a dem quoi di sant ñëpp quoi macha allah. galas dafa am ku ma fàtte rek. mooy euh, ñoom ñoom xaarim fange. waaw ak ñoom góor a mbaxal xam nga. ñoom mbay nopp yenn gaa yi nekk foofu noonu xam nga. ñoom ñëpp maa leen di gën a soññaat rek daal. waaw di ñoom Omar kan xam nga. Ado ñoom ñëpp Seydou Sadio ñoom ñëpp waa conseil du quartier bi ñëpp maa leen di xam nga tàllalaat loxo. macha allah di leen waaw di leen woo yéen ñëpp waaw El Hadj El Hadj bu mag bi Baye Jebel sama tambour major Baye Jebel sama tambour major macha allah Modou Mbaye xam nga coo mbaay yéen gaa yëpp jege si leen teel leen a jege si rek waaw nax fii daa war a yëngu ba sëñ Bamba alaaji Fallu yow Baay Faal nga jaajëf di la sant di la gërëm bu baax a baax jaajëf bëgg nañ moom caatu Papa Kane noonu moom xale la boo xamante ni si waroon na bëre bu yàgg mais ni làmbam demee la wax na dëgg ay adversaire am da doon jafe da doon naqaree wutal adversaire kon tey bu amee combat war ci jëm war nañ ko seeti mu wax nan la koy waajalee dégg ngeen ko ni mu waxee làmb la digganteem ak Boy Faye làmb ju neex lay doon parce que moom gis naa li topp ci ginnaawam am na mbooloo moom mii donte bëreegul gars yi umpale nañ ko mais am na loo xamante ni si jot nañ ko découvrir ci moom xam nañ ko ci moom ki muy bëreel tamit ndaanaan la comme ni nga ko waxee moom xëy na miinu ko bu baax mais am na ñu ko miin kon combat la boo xam ne combat bu neex la combat la boo xam ne tamit dañ koy bàyyi xel ci journée boobu wax naa leen ko journée goo Salam la Go salaam production Maxi Crési mooy bëre grand combat bi ak am ne moom mooy Boylo wax nañ leen ko Arsenal dina fu bëre ak Siteu bu Arsenal mu ngi bëre ak Siteu bu Saalum lay bëreel moom it war nañ ko seeti defak moo waxtaan noonu la demee mbokk yi kon rendez-vous le 14 incha allah rabbi Baye moo nekkoon ci cadrage bi bëgg nañ gaa yëpp leen kontaanee jaajëf